gërëm di leen sant di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dama koo kaasoon kaasaat ko kaasoon ko kaasaat ko wax ko waxaat ko ñu ne non booy Bakary dafa réew lan moo tax ñu ne Bakary dafa réew parce que dama gis ay documents yoo xam ne nii tey mi ngi biir CNG documents yoo xam ne nii documents yu dëgg la véridique démb nag dañoo gis ci face à face bi Balla Gaye Tapha Tine Ama Baldé Gris Bordeaux ñu toog di wax ñoom ñëpp ñëw soog wax ci CNG te li ñuy kaas ci CNG kaas naa ko fi ca ginnaaw mais jamono jooju mbër yi di kaas nii fan lañ nekkoon fan ngeen nekkoon jamono jooju xam nga dama leen wax ne leen des fois gis nga nit da ngay séddu lu sori séddu lu bëri bu fi mbëri yi nekkee muy mbër yu ndaw yi di dund ay injustice yu metti yoo xam ne ni CNG ñu ngi koy teg seen kaw. yéen ngeen toog ci seen ruq yéen VIP yi ngeen toog ci seen ruq du ngeen yëngatu du ngeen wax du ngeen woote surtout yow Gris Bordeaux yow mi nga xam ne nii yow yaay président de lutteurs en activité booy ndaw yi di dund lu metti ci làmb CNG di leen ko teg ngeen di seetaan toog seen ruq waaye bi mu demee ba tibb ci seen poche yéen rek personnel yéen yéen VIP yi di ko jooytu buñ demee ba tibb ci seen poche yéen VIP yi rek ngeen taxaw di ko jooytu lan moo tax yéen VIP yi buñ laalee seen poche mu metti leen te booy yi sa fait combien de temps combien de mois booy yi combien de d'années booy yi ñu leen di dagg seeni pay ñaata yoon ñaata yoon booy yi ñu leen di dagg seeni pay combien de fois la ñuy dagg booy làmb yi nga xam ne nii muy booy ndaw yi ñu leen di fay ay sept cent mille cinq cent mille huit cent mille un million ñu dagg leen bañ dese leen ay deux mille cinq cent. Baye Mandione Junior barki démb gis nga lu ko fi dal est-ce que tey amoon na benn acteur de la lutte boo xam ne tey génnoon na taxaw yor micro jàkkaarloog askan wi wax mais duñ ko def de dañuy bàyyi bañ laal seeni poche. bu ñu laalee seeni poche nag ñoom ñu xam ne nag concerné leen ñu bëgg a génn bëgg coow bëgg a kaas. guerre bi man maa ko porté woon sama guerre la wax naa leen ko guerre bi man maa ko porté woon guerre bi man maa ko porté woon Balla Gaye lim taxaw kaas ko Gris Bordeaux moo ko waroon a kaas ndax moom moo jiite mbër yi Gris Bordeaux moo waroon a kaas guerre bi avant ñuy toog ñoom di xaar ñu leen di dagg ñuy toog di wax dañ waxante dëgg guerre bi avant ñoom Balla Gaye toog di ko kaas ñoom Gris Bordeaux Gris Bordeaux moo waroon a porte guerre bi li gars yi dund ci at yi ñu génn ak Bira dafa metti làmb dafa metti xëy di reyante suba ak ngoon tàllal loxo dafa metti mbër day taxaw tàllal loxo pour ñu jàppale ko ci làmb reliquat ba des biir CNG CNG caxat caxatee ko avant làmb ji di am CNG xam na ñaata la ñu war a dagg mbër yi dañ leen waxante dëgg dañ leen waxante dëgg nañ leen waxante dëgg du yoon avant lamb di am CNG xam na ñaata la ci war a am te xaalis boobu kenn xamut fan la war a mën a dugg léegi nag dama leen di fàttali ko waat déglu leen ma jamono ji fi makki sàll nekkee yéen VIP yi yéen a dankaloo woon dem ci Macky te naan ko yaa ngi liggéey boobu Bira Sène fu mu nekk ma nga ca Macky Sall boobu lan moo xew ministre ba ko fal ma nga ca Macky Sall ba muy laaj oto ñu koy jox boobu yéen mbëri mag yi yéen a ngi taxaw di seetaan. booy ndaw yi ñu ngi leen di rëq seen ndigg di leen rey suba ngoon yéen mbër yu mag yi ngeen ne pat ba leen ministre ba di invité ca Saint-Louis yéen yéen a ngi ne pat te bira mi ngi doon dagg di def ngeen ne pat. léegi nag bu ñu demee ba bira seen mandat am di waaj a jeex ngeen génn yéen VIP di bandi bandi lu naan non dañoo war a raag dañoo war a xeex yéen yéen kal ngeen di nax kal ngeen di nax ñan ngeen di nax bañ laalee seen poos ngeen di soog a yuuxu biñ laalee seen poos ngeen di soog a yuuxu. ba fii Macky Sall di nekk bu leen fàtt ne yéen yéen doon ndaataa tëllëx yéen yéen a doon feccal Macky Sall yéen doon feccal Bira Sène te naan day liggéey nañ ko wax nañ ko wax te dee bàyyi leen li ngeen di jéem a camoufler di wax nii ay Gris Bordeaux ñëw di teg bandi non c'est pas normal CNG non dagg bi nii dara ngeen ci gëmut li ngeen wax ñaata booyi licence yoo xam ne ni tey ay trois cent mille deux cent mille ay quatre vingt mille franc lañ leen fay ci takkusaan ñu ñëw di bëre ñu dagg leen avant sax ñuy commencé buñ paree mille franc la am CNG yow Gris Bordeaux yow yëgoo woon loolu Gris Bordeaux yow yëgoo woon loolu dañ leen waxantu dëgg baleen seen caaxaan yi baleen seen caaxaan làmb fii ak booloo woo leen doon benn di xàccandoo di dóorandoo danañ leen yéex a ñàkk bañ a respecté ci làmb ji yéen vous êtes les acteurs principaux dama ko fay kaas deux semaines trois semaines ñu ne non Bakary dafa réew day saaga waate man xam naa li tax ma doon saaga lan la parce que nag dafa mu document yoo xam ne nii dañ koy gis te du yoon tey CNG bu demee ba ne ñoom ci seen caisse trois millions moo ci des ministère bi fi nekkoon ñoom ñoo leen war a jox seize millions et bu leen fàtte ne champion d'Afrique i fii lañ ko organiser soixante millions budget lañ teg ci table bi soixante millions yi fu mu dugg France daal di xuddee booy ñoom général Malika yi nga xam ne ni ñoom ñoo jël championnat ñaata lañ leen jox ñaata lañ leen fay nee naa la dëkkal ma ma doon ku réew dëkkal ma ma doon ko xamadi dëkkal ma te naan kii lu muy wax xamu ci dara waaye nee naa leen saa bu ma waxee deux semaines après xaar li ma leen wax day ñëw tey ay VIP ñoo taxaw fipp ne du yoon te ba ma koy kaas du léegi ba ma koy wax du léegi waaye fàttaliku leen ne ñoom ñoo ñëpp ñoo bokkoon benn équipe ñoom ñoo ñëpp ñoo bokkoon benn équipe ca Macky Sall ñoom ñoo ñëpp ñoo bokkoon benn équipe ca Macky Sall ñoo bokkoon benn équipe ca Biraseen Gris Bordeaux moomu ca Biraseen la far A ba Z dañ leen dëgg booy di dund lu métti booy di dund lu métti VIP yi ne pat lamb ju ne takkusaan ju ne xew na fi gars na ne pat kenn du wax ñu dagg booy yi di sanctionné booy ñu ne pat te buñ sanctionné koo xam ne nii tey am na dayoo rek buñ ko sanctionné rek gars yi commencé génn waa kaa leen dem bu ngeen déggee ay ñoom Gris Bordeaux naan kaa leen dem ñu ñaani njëkk ak teraanga parce que ñoom ci gang bi lañ bokk ci groupe bu ci mafia wu ki nga xam ne nii mooy Bira Sène ñoom ci lañ bokkoon bu lañ ko fi fàtte nee leen élection yi ba mu fi jàll yàggul dara men nam Ama Baldé kese moo ci newoon de côté nañ leen waxante dëgg rek jëru fee fàtte vidéo yaa yéen fi doon feccal waa CNG yéen fi doon feccal Macky Sall yow Balla Gaye Modou Lo Tapha Tine Boy Niang yéen ñoon ñépp tey bu CNG amee fit di rey nday booy yéen la yéen la yéen la yéen yéen ko jur ku la ali la fooy dox yéen yéen a jur loolu lépp Bira Sène tey bu demee ba am fit taxaw di doxalee ni muy doxalee nii yéen yéen a ko ko permettre ah waaye nag comme li may wax Sénégal dafa yomb koo jóg mu naa la non man doomu jullit laa dama am ngor ngor-ngor boo xam ne nii da ngay ni rey seen moroomu mbër li waxante dëgg loolu du ngor loolu du ngor sport ngeen di def acteur principal yi yéen dama koy waxaat acteur principal yi yéen la yéen waroo leen bàyyi Bira Sène ak Ñambe Diop ñëw toog di teg loo xam ne teguwut maa ngi dégg nag ngeen di wax naan waaw ancien gloire yi Yékini mi ngi fi président CNG Yékini mënul doon président CNG Tyson mënut doon président wu CNG Moustapha Gueye moom mënul sax doon président wu écurie bay doon président wu CNG directeur technique bu Fass boo xam ne ni dafa tële taxawaayu saytaane lay taxaw ci plateau yëpp gis ngeen ko démb kaasu Tafa Gueye yi muy kaas yëpp amul dara loo xam ne nii lu dëggu ci moom dara dëggu ci Tafa Gueye fépp la fa Tafa Gueye bu ngeen juumee ba jox ko CNG mooy tey bu dee dóor moo leen ko dàq fop ndax moom làmmiñam bu génnee nay defar poosam bu làmmiñam génnee rek na defar poosam looloo fi ne nañ leen ko wax looloo fi ne fii ngeen toog nag di wax fa Tafa Gueye naan leen oui vous avez raison yéen la non mais vous avez moo gën a saytaane vous avez raison yow vous avez raison yow Tafa toujours yaa ngi ci taatu bi raaseen lii xew ci làmb yëpp xam nga ko nee naa leen kaaw caatu yaraax bi gars yi fi woowoon caatu yaraax yëpp jaar ci suuf di wax ak caatu yaraax yëpp boobu yéen a ngi doon wu dërëm bu ngeen dugal seen poos ak promoteur bi mais promoteur bi gën leen a nànd kaw caatu yaraax bi CNG moo yónni gars yi doon woo caatu yaraax yëpp ci ginnaaw naa booy da war a bëre booy c'est-à-dire c'est-à-dire pour booy bi gën a siisu bañ a bëre ndax boobu dil mi ngi woon ci ginnaaw 3 millions yi waroon dugg ci poosu caatu yaraax CNG da ko naroon a dagg aj ko jël 3 millions yi lekk ni ko tundeex promoteur bu du jot dara promoteur bi tamit jël loolu valide ko dem ci sponsor bi teg ko ci loxoom ne ko xoola CNG ñoo ko aj bu ko defee promoteur bi jot xaalisam kuy perte boobaa caatu yaraax mooy perte waaye démb làmb démb ji lu ngeen ci am làmb démb ji lan ngeen ci am ngeen waxante dëgg ñun buñ gisee organisateur bu mel ni Gaston production tëgg làmb tëgg calaf final calaf jot muy jël ay bologu bii di ko maye di def porte ouverte ah, ça veut que Caatu Yaraax il a bien joué te nee leen fii cerveau bi fii la dama leen koy waxaat dafa am yoo xam ne ñun dañ koy gis trois semaines quatre semaines ci ginnaaw di ko wax gars yi dañuy diaboliser mais réalité bi moo fi nekk CNG bi ñuy kaas ci CNG lii yëpp mbër doo warutu fee sëgg mooy que deux millions wax naa leen ko mbër warutu fee sëgg mooy que deux millions francs CFA il faut payer les lutteurs ces jeunes la ils ont abandonné leur vie ils sont concentrés sur les donc il faut les respecter ils ont pas une métier à part ça ci loolu la gars yi yaakaar kon yaataa yumbee ba tëllëx tëllëx gi dafa doy waaw kilifa yoo xam ne nii matuñu kilifa mënuñoo toog yu kilifa pare nañ pour lekk seen i doom lekk seen i sët sëtaat ngeen wax ay ancien gloire Balla Gaye yow bala ancien gloire nga fi woo ancien gloire yi ñoo fi gën a ndaataa tëllëx ancien gloire yi ñoo fi gën a tële ancien gloire yi dépense la ñuy wër bu ñu ci braseen dañ koy maral taal waaw ñi nekk ci làmb ji nii ay ñoom ay ñoom Balla ay ñoom Zallo ay ñeneen ñi ngi fiy dégg ay ñoom Manga dëgg ñooñu ñoo rey ndey CNG bii nañu waxante dëgg ñooñu ñoo bii dama la koy wax lu biraa def neex na leen parce que bu biraa daggee da leen di cërle da leen di sédd looloo fi ne mbër day génne sa koñ ji dem sax manager bi dem promoteur ñëw ne ko fay naa ko 7 millions. dem ci bira seen déclaré fa 3 millions manager bi dem ci bira na ko 7 millions lañ ko fay boo ko daggee 2 millions 500 du ko metti loolu lay wax ji yéen da nga yaakaar ñun dañoo dof ñun xam nañ lépp de xam nañ lépp xam nañ lépp kon bàyyi leen seen yaataa yu mbéy seen puukare yi ngeen nekkee yéen VIP yéen laay waxaat yéen bu ngeen nee ne yéen yéenay làmb du ngeen làmb dama leen koy wax seen wàllu wéy na ba pare yéen yéen a war xeexal booy yi fi war a ñëw te xeex bi da ngeen koo def taar moom mooy lan biñ laalee seen poos ngeen di taxaw di kew kew avant la woon avant la woon ku ci am dëj ku ci am ngénte da ngay woo journaliste yi nga toog wax ku ci am combat woo journaliste yi open press toog wax kon lan moo tax tey bu ñu laalee njabootu làmb mu metti lool du ngeen nangoo nangoo génn wax ci du ngeen nangoo génn addu ci lan moo tax du ngeen nangoo génn addu ci addu ci wax ci moo dama leen naa fekk gaa ngi noon naa fekk gaa ngi noon te du yoon dama koy waxaat du yoon teguñu ko fenn dañoo waxante dëgg te yàlla tax nañ bàyyi booy yi ñuy rey waaw nañ bàyyi booy ñuy rey waaw boo gisee nag tey lu tax saagawu moo Bira Sène dafa am benn doomam bu ñuy wax Yaamu seen Yaamu Sène moom moo woo téléphone ñu waxtaan waxtaan bu xóot sax muy booy bu yaru muy booy boo xam ne nii booy bu tegu ci yoon booy boo xam ne nii macha allah moom lu ma ñaan nag lam ma ñaan nag may naa ko may naa ko de parce que nag nit nit ay garabam soo demee nag doomi Bira woo la muy yaamu wax ak man am ni mu waxee man ma comprendre li mu wax te ñëwul ci banditisme ak man dafa ñëw wax ak man ci njëkk ak teraanga ginnaaw nag am na yar may naa ko loolu mais terewut geeru CNG bi dañ koy continuer Bira du fi doonaat président wu CNG mbër ndaw yi pare leen donc ministre dama koy waxaat préparé wu leen ministre bi dafa am nu ñu war a mën a doxalee CNG bi jox ko koo xam ne ni yelloo na ko waaw fii Bira Sène mënut a suspendre fenn caatu yaraax fenn caatu yaraax a respecté toutes les réglements de A à Z caatu yaraax a respecté tout de A à ñun gis nañ fi Tafa Gueye Moustapha Gueye Yékini da ngeen a fàtte. gis nañ fi Moustapha Gueye Yékini Moustapha Gueye daw làmb ji yëpp carrément gis nañ fi Bombardier Tapha Tine dañ leen waxante dëgg baleen seen caaxaan yi naaru sokaas barki démb rek gis nañ ko fi cinq avertissement yi tegaloo yëpp nangu ta bëre nangul dóore loolooy wax ji waaw il a rempli son contrat donc Bira Sène warul wax léegi Bira da ngaa rëy nday da ngaa rëy làmmiñ di wax maa ngi jégul bugguma ko saaga Bira da ngaa rëy làmmiñ wax yaamu maa ngi jégul da ngaa da ngaa rëy di wax léegi Bira benn affaire am na woowal Balla gay sanctionné ko doo ko def nee naa leen dossier bi nekk biir CNG te Makan meng tëggoon ko diggante Balla gay ak ki nga xam ne nii moom mooy Eumeu Sène lu tax dossier boobu noonu Bira woowu ci kenn wax ci lu tax dossier boobu noonu Makan Mbengue sanctionné wu ci Balla Gaye lu tax Balla gay amaat beneen combat dem bëri ji ko te kenn ŋaawul jaay doole bi moo fi jeex waaw loolooy wax ji tey mbër yëpp taxaw nañ wax ndax Bira dana jéem a sanctionné léegi nag Gris Bordeaux le la que nga taxaw ne du yoon tey nañ xaar Gira seen bu jéemee sanctionné ki nga xam ne ni tey moom mooy caatu yaraax yéen waa làmb da ngeen a war a dëddu fekk ko biir CNG génn ko CNG par la force na dëkk bi toj na dëkk bi toj fay leen naar bi xoromam fay leen naar bi xoromam bu leen fàtte ne nag gouvernement wu Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement wu ki nga xam ne nii moom mooy Ousmane Sonko Moustapha Gueye barki démb yow ca Macky Sall yaa doon xeex ak Yékini ah chevalier ba Moustapha Gueye moom moo doon raag ak Yékini raag bu mett ngir takkal chevalier pas plus raag-raag yi mett ñaar ñu nga yaakaar ne danañ leen jël daf leen président CNG ci yaataa yumbe ci ci yu tax yu tax lu tax fu ñu ko teg ah dañoo waxante dëgg Moustapha Gueye n'est pas juste Yékini n'est pas juste maa koy wax léegi ngeen dégg ñaar ñuy taxaw ci président ci kanamu président de la di xeex ndax chevalier de de l'honneur takkal boobu rek ñu raak fa raak yu metti ci ay kilifa yow ñu dañ leen jël teg leen CNG xanaa kon dañu ray booy xanaa kon dañuy rey booy yi dañ ko waxtaanee rek kaay la ñu waxtaanee ko ngeen xool. dañ ko waxtaanee waaw dëkk boo xam ne nii soo bëggee jubal gars yi taxaw ne booy bi daa boo bëggee jubal ñu ne non booy bi dafa xamadi non booy ni ngay waxee waru koo waxee yéen da ngeen a dof man juruma kenn moom ma kenn jënduma man lépp lu may wax man man man la concerné man maay taxaw wax ko dëgg bi may wax nag muy déranger dana yàgg rey ndey nit ndax danaa continuer di ko wax te mindeef du ci mën dara dama koy waxaat Moustapha Gueye il est faux il est faux même Tyson Tyson peut pas gérer CNG maa ngi jégalu Tyson mënul gérer CNG maa ngi jégalu dama ne Tyson mënul gérer CNG mbër la bu sàq sàqiwaat sàq sàqiwaat te dafa dëgër bopp Tyson dafa dëgër bopp sàq na fi sàqiwaat jeex na ñooñu dañ ñuy woon ñoom seen comportement niñ mel déjà on le sait déjà xam nañ niñ mel fii pouvoir avant nga koy yor nag mën ngaa mel ni nday xar booy boo waxee nga nuyu sant yàlla sant yenent bi sallallahu taala wa sallam ndax pouvoir lañ lay waaj a jox waaw fii ñun Sénégal ñun ñëpp lañ njaboote nañ ko njaboote waaw xam nga dëkk bi nangam nangam man pare naa pour ren boo toogee nday six mois nga bëgg wone na yow yaay yaay kilifa bi commencé nag lekk ndey ci xaalis bi dànkaafu booy yi booy yi yuuxu booy yi yoo xam ne nii tegoo leen ko fenn waaw loolay wax ji yéen ngi nii démb demaa bi ngeen toog Moustapha Gueye di wax Moustapha Gueye mu leer na li muy wax loolu yéen gëmu ci dara Moustapha Gueye moo raw ñebbe Moustapha Gueye moom moo raw nuñ wax tey moo raw nday weñ fu tooy mu tag loolu ñëpp di ko gis ngeen di wax yéen da ngeen a dof xanaa Gris Bordeaux ngi noonu il s'entend pas bien avec Moustapha Gueye Gris Bordeaux Moustapha <laughs> façon bi nga xam ne nii Gris Bordeaux mi ngi ko doon waxee Tafa Gueye ngi toog Tafa Gueye mi ngi bëgg tellement approche su Gris Bordeaux bëgg tellement approche u Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye ne s'entend pas bien avec Moustapha Gueye lu tax parce que ñoom Moustapha Gueye façon bi ñuy toogee ci plateau yi nu leen neex lañuy ñuy toogee tey ñu ngi ci diw tey ñu ngi ci diw tey ñu ngi ci diw faruñu fenn ñoom Moustapha Gueye mbër seen mbër day am sax ñu dem jaay ko fële loolu lay wax ci seen mbër day am combat ñu dem jaay fële la mbër moo war a def ci te kii bi yëpp mu dem wax ko kële lu tax parce que y a des liens y a des loolooy wax ci c'est ça la réalité dañ ko wax te dee merci Mohamed un règlement peut être strict mais pas pour tuer des lutteurs booy dañuy consacré plus de six mois sept mois di reyante suba ak ngoon six mois sept mois di reyante suba ak ngoon pour am benn combat combat bi ñëw ngeen dagg leen plus de un million e quelque fu ngeen ko teg yéen booy boobu noonu nga xam ne day rusa tàllal loxom te imagine tey mbër day wàcc boppam bay tàllal loxom di ñaan pour ñu may ko ay bologu bii ñaan dafa metti di jooytu di jooytu di jooytu ci guerrier dañuy waxante dëgg bàyyi leen ngoru gaay yi ngeen di rey te bu ngeen toogee nag ci plateau foo benn ak peeru foo goo xam ne nii ba pare ngeen am ñeneen ñu leen di jàppale ci ginnaaw ngeen organiser seen émission toog gars yi yor micro yi ngeen briefing wax pour affaire yi jàll Sénégal ñoo war a bàyyi naa fekk tey wax dëgg loolu dëgg du yàgg dafa am loo xam ne fi ñun fii lañu fekk wax naa leen ko làmb ji la dafa wañ koo war a tegaat ci yoon jaara ko ci yoon dañ ko wax te dee dañ ah, ko wax te dee waaw fii yéen a fi toog démb yéen ancien go yéen yéen yéen yéen VIP yi ngeen woowee seen bopp VIP fii ngeen toog démb di kaas naan CNG CNG ba ma koy geer du léegi ba ma koy geer du léegi wax naa leen ko nee naa leen dossier bu mu dugg dafay leer nañ demb nag dañoo laal seen i poos ngeen taxaw yuuxu mel ni dëmm yu jëfaru waaye ku leen ñaata doomi Sénégal njaay yoo xam ne nii ay mbër lañ yori licence nekk ci làmb ji ñuy rëq seen digg matin midi soir yéen VIP kii kenn mosu ci génn attu lu tax tey tey jii bu ngeen amul ngénte ciit wala dëj fii ngeen di woo si site internet yëpp wër leen bu ngeen amee point de presse site internet yëpp wër leen waaye bu amee benn mbër boo xam ne nii dafa dund lu metti ci kaw Baye Mandione junior bi lu tax génnewoo leen def point de presse yéen waa làmb yëpp booloo jàkkaarloo dañoo waxante dëgg lu tax defoo leen ko du ngeen ko def de waaye fàttaliku leen nee naa leen ca Macky sàll ba ña ko doon feccal ña ko doon feccal ndaw rabbin ña ko doon juutul ña ko doon bàkkul yéen VIP yéen la pour wane leen ne yéen bala ngeen di kaas ngor ngor ngor ngor day fekk ngeen di fàttaliku démb fàttaliku leen démb Gris Bordeaux yow looy jariñ tu sers à quoi waaw Tapha Gueye yow muy assister yow muy confirmer yow Tapha Gueye tu sers à quoi Tapha Gueye la mooy sa liggéey la mooy lan lan ngeen di jariñ yéen tey brasser nu mel ci CNG bi yéen la yéen VIP ak yéen ñoom Moustapha Gueye yéen ñooñu wër ko yéen la yéen a koy yaataa yu bu daggee coppal leen ci ngeen coob ne pat te naan non mais nag du yoon CNG war nañoo xoolaat réglement bi ko mais nag règlement la léegi bu ngeen demee ci bira bira ne leen règlement bi nii la meloon lii laa ci coppi lii laa ci coppi yéen a ngeen yaakaar ne ñun dañoo dof dofuñu da ngeen di business yëpp xam nañ ko dofuñu li ngeen di business yëpp xam nañ ko dofuñu de donc respecté leen booy respecté leen booy waxal naa leen ko bi fi position politique jotee da ngeen jël yéen ñëpp position mu Moustapha Gueye toog naan usmaan Sonko mon nami du sa ami de du sa ami amul ami de Ousmane Sonko c'est pas ton Sonko waxu la ne la yéen lu tax doona le Moussa Ousmane Sonko musu koo wax waaw c'est pas vrai waaw c'est pas vrai jamono bi muy dund lu métti ñu koy tëj ci kaso bi yéen a ngi feccal Macky Sall noppi leen nee naa leen yéen da ngeen war a noppi. yéen tey gouvernement bi bu ngeen gisee sax façon bi ñu ñëwee ak waa làmb ji ñal ñoo tax yéen acteuru làmb yi yéen yéen a tax ay Moustapha Gueye dem di raag ak ay Yékini ci ay cheval ci ay chevalier ay yoo xam ne nii da ngeen di jaay seen ngor pour dara simi seen tubéy pour dara loo xam ne day dem yéen dafa mel ni yéen amoo leen expérience jamonoy Senghor ba tey ñaata ministre ñoo fi jaar ñaata député ñoo fi jaar garda leen seen ngor protéger seen i doom waaw garda leen seen i protéger seen i doom ñaata ministre ñaata député ñaata président ñoo fi jaar toujours yéen a ci làmb Tafa Gueye toujours yaa ngi ci làmb ba nga nekkee ci làmb bala Ndakaaru joxee xol ba léegi toujours yaa ngi ci làmb mu Moustapha Gueye lan nga mës a changé ci làmb Moustapha Gueye règlement wu cinq avertissement yi sax ci yow la génne yaa fi doon bëri yëkkëree di daaw dañu waxante dëgg Gris Bordeaux li ko daal barki démb ci ci ci ci ci nuñ ko waxatee sax euh, ci Ama Baldé yow yaa ko njëkk def fii la la tey jënd tuy croisé nga ne bëreetoo génn làmb ci pare ci ah da nga fàtte léegi boo toogee ne yow expert nga yaa toog di wax soo toogee ne expert nga yaa toog di wax te ñu ngi fi mës a daan ñëpp ay paalañ daanoo fi kenn ku doon sa morom ñu ngi fi daan ñëpp ay paalañ maanaam xamul yéen lan ngeen wooy expert lan mooy expert pour yéen expert yoo xam ne ci ka làmb bu set. experts yoo xam ne nii pour ñu toog di décortiquer la Moustapha Gueye ba ngay def lay di tigre ba léegi mosoo décortiquer loo xam ne ni leer na crochet droite direct droite mooy lan crochet droite direct droite mooy lan moom laa leen wax nee naa leen Sénégal ibbi seen bëti ngeen bàyyi nelaw bi gars yi ni ñuy dundee ci seen kaw nax ak incarné incarné beeg nax bi dañ ko teg ci suuf dañuy respecté booy yi respecté cerveau booy loolooy réalité bi arrêtez vos conneries bande de merde arrêtez vos conneries là la ma wax mu leer ngeen bàyyi seen caaxaan yi sama gars am leen jàmm ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox seen waay fii moom lu Macky dem dem dem dem jaaxaar toog doon président Ousmane Sonko di PM mandat wu Bira dañ ko fi tere na leer.